Lamine baraga yi ñu ngi lay nuyu waaw maa euh, mm-hmm. am nañu mbégte dalal la ci matinalu tey bi yow yaay euh, porte-parole au ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique conseiller technique euh, nga fa itam cadre APR nga nekk responsable politique également ci Mbacké alors ñuy mm-hmm. tàmbali waxtaan wi ak conseil présidentiel bi nga xam ne ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ci weeru août wi ñu nekk jagleel ko wàllum logement tax mm-hmm. ñuy waxtaane logement sociaux projet yi nga xam ne état bu Sénégal taxawal na ko jëm ci wàllu woowu euh, ministère bi nga nekk ñoom ñoo yore justement euh, programme bi di une famille un toit ak euh, programme cent mille logements alors fan ngeen toll ci ñaari liggéey yooyu waaw comme ni nga ko waxee xam nga président de la république bi ñu formé gouvernement bu bees bi ci la nommé woon monsieur le ministre Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme du logement ak hygiène publique ci lañ lancé tamit programme bu am solo boobu ñu tuddee programme cent mille ci suñu mbokk sénégalais yëpp inscrire woon et que fi ñuy wax ak yow sénégalais yi nekk ci biir réew ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp bindu woon nañ ci base de données boobu parce que quand même logement ñëpp ñoo ko bëgg képp kuy liggéey ku ne bëgg nga am foo dugal sa njaboot et gis nañ ne quand Sénégal malgré effort yi nga xam ne suñu suñu structure yi nga xam ne ñooy liggéey ci habitat muy ay SICAP muy HLM muy promoteur immobilier yi malgré le quand même ñi ngi góorgóorlu di réaliser ay programme waaye ba léegi nii sénégal yi bëgg nañu kër et que ñi bëgg kër ñëpp quand même ñooñu mënuñ leen satisfaire loolu moo taxoon gouvernement bi teg programme boobu programme bi nag bi ñu ko defee dañ ci liggéey ak suñu service technique yi particulièrement direction générale de l'urbanisme et de l'architecture ñu naan ko DGUA ak mais ci biir ministère bi tamit ñu créé beneen direction générale chargée de la construction alors ñoo ñu nag ñoo liggéey yi service technique yooyu ak communes yi ak euh, collectivité locale yi ak service technique yi nga xam ne ñoo nekk ci régions yi ak département yi ba tey ji identifier nañ ci Sénégal yépp ci ñi nga xam ne eh, foofu la ñu war a def programme yooyu muy Daga Xolba muy Déni Biram Ndaw muy ci région yi Sénégal yépp tamit xam nañ actuellement surface yi nga xam ne daal disponible na mm-hmm. et que gouvernement bi jël na site yooyu léegi nag li ci des mooy lancé nañ appel d'offre yi Ah, entreprise yi ñoom ñooy def ñooy def ñooy déposé ah parce que ministère bi dafa def loolu ñu naan cahier de charge maanaam boo ñëwee ñu wax la condition yi nga war a satisfaire pour bokk ci programme bi su ko defee entreprise bu ne jël ko dem liggéey ñëw def manifestation d'intérêt après nag ci la gouvernement bi sélectionné ñu mën a jox entreprise yi pour que ñu mën a liggéey liggéey bi te mu gaaw parce que si bu ci nekk bu ñu ko jëlee ministère bi mooy fexe ba yóbbu fa yóbbu fa courant fexe ba def loolu ñu naan réseau primaire assainir ko tuuti ba mu am ay yoon su ko defee entreprise ñoom bu ñu ñëwee rek dañuy daal di mën a liggéey waaye gouvernement bi tamit dafa góorluwaat ba créer ay instruments yoo xam ne dana gën a mën a yombal mbir mi parce que li taxoon logement di cher mooy ciment bi dafa cher mooy fer bi dafa xaw a cher loolu tamit quand liggéey nañ ci parce que créé nañ benn fonds bu ñu tuddee fonds de l'habitat social alors fonds boobu mooy am taxe bu ñu teg ci kilo ciment bu ci nekk xaalis boobu nag moom la dajale fexe ba nga xam ne quand dana mën a servir de garantie ak banques yi pour que ñu mën a entreprise yi mën a liggéey yëgee fo lever ay fonds foofu su ko defee ñu mën a liggéey kër yi mu liggéey boo xam ne quand bu gaawut loolu it dana nekk ci ay délais raisonnable pour que ñu mën ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo. 100000 mm-hmm. logement bi bi ñu koy lancé ak bi mbas mi di ñëwee Sénégal sorantewul est waaw mbas mi moom ni mu laajee ni mu laalee secteur yëpp tamit noonu la laalee secteur u bâtiment parce que xam nga gouvernement bi moom mooy joxe xaalis yi koppar yi ministère des finances te bi mbas mi ñëwee dañuy defaat ay yeneen arbitrage yeneen yoo xam ne day tax mbir mi na mu daan gaawee dëgg dëgg dëgg ci mooy gaawewul noonu laal nañu baax waaye teewul na quand même ñi ngi accéléré ñi ngi liggéey et que fan yi di ñëw ci kanam président de la république dana présider loolu ñu naan conseil présidentiel ci urbanisme ak habitat pour que ñu mën a jël décision yi arrêté ko président validé ko ñu daal di mën a avancer bu ko mhm. une famille en toit projet la bu ngeen euh, lancé euh, lu jiitu cent mille logements bi est-ce que foofu mun nga ñu wax dëgg-dëgg lan la ñu fa jot a def comme liggéey. waa projet boobu tamit liggéey na ba am na ñu ñu jox ay kër au niveau de Tivaouane Peulh ak Niaga. Euh, c'est la même chose tamit ak suñu projet boobu ñu tuddee projet de construction des logements sociaux ñu gën koo xam projet boobu tamit liggéey nag gis nga cité boobu ñi nga xam ne waa Tawfekh yaakaar am na ci ñoo xam ne certainement ñu ngi ñuy déglu ci biir ndox mi lañ nekkoon Pikine ak Guédiawaye Bund ak Kër Massar bu nawet Massar jot xale yi duñu am fu ñu foye nit ñi duñu mën a liggéey tey logement yooyu liggéey nañ ko ku dem Tawfekh yaakaar lu ëpp junni ak juróom-ñetti téeméeri famille tuxal nañ leen ñoo xam ne tey ñi ngi dëkk fu ba euh, macha allah ci cité bu baax noonu la ñu def tamit tey ñi ngi liggéey ay logement fekk ci ZAC bi am na deux cent logements ñaar téeméeri kër yoo xam ne daanaka téeméeri ak juróom fukk génn na ci suuf tabax jóg na li ci des tamit ñi ngi koy def am nañ programme bu mel noonu tamit Joal ak Ngéyeen parce que Joal yi dafa fekkoon bokk ci dëkk yi nga xam ne eh, dafa am ay famille yoo xam ne inondation yi da leen daan sonal foofu tamit am na fa programme bu mel noonu ak yeneen yëpp ci Sénégal capital régionale parce que bëri na ay sénégalais yoo xam ne tey ñi ngi liggéey Dakar am waaye bëgg buñ sañoon am kër fa ñu dëkk am Thiès kër wala Kaolack wala Touba Mbacké wala Ziguinchor wala Saint-Louis foofu yëpp am nañ fa ministère bi programme yi ñu yore am nañ fa ay programme yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey et que bu jotee danañu fexe ba Sénégal yi quand même am ci am ci ay kër ci ay prix yoo xam ne dana raisonnable parce que logement social yi duñ ko defee président daf ne nañ ko liggéey maximum ay kër yoo xam ne neuf ba dix lay nekk waaw parce que gouvernement bi yeneen taxes yi nga xam ne moo daan seeral kër yëpp gouvernement bi def ci agir ba nga xam ne tey danañ mën a mën a defar ay kër yoo xam ne logement social du romb fukki million fukki million ak benn jëm ñaar waaye mënut romb foofu am na nag yeneen kër yoo xam ne ñoo xam ne ñoom bu ca seen poste àggee muy grand instance ah ñooñu nag euh, tamit ba léegi danañ liggéey tamit ay format yu mel noonu d'accord alors sénégalais yi nag ku nekk xam na ne seen jafe-jafe bu gën a rëy mooy mën a bokk ci yooyu le programme ndax ñu ëpp ci askan wi xëy na ay góor góorgóorlu lañu amuñu salaire fixe boo xam ne dana leen may itam ñu mën a remplir yenn conditions yi maanaam joxe garantie yi war pour bokk ci programme yi est-ce que yéen a ngi bàyyi xel góorgóorlu yooyu nga xam ne euh, xëy na duñu am ay euh, revenu yu fixe maanaam li ñuy am weer wu jot euh, mënu leen a may xëy na ñu ñu mën a souscrire waaw danañ leen nañ leen di bàyyi xel effectivement parce que man mi di wax ak yow Bawol laa dëkk am na suñu mbokki Bawol boo xam ne ñii ay commerçant lañ ñii ay chauffeur de taxi lañ léeg-léeg dañ lay laaj ne la waaw ah, mais para man nu mooy def ba am prix loolu moo tax tey gouvernement bi liggéey ci fonds de garantie boobu nga xam ne bu ñëwee danañ leen garantie pour que ñoom ñu man leen a jox kër ñu xam naka lañ koy mën a fayee loolu moo tax moo tax programme bi ci base de données boobu ñu woon cent mille logements yi nit ñi ci par internet bu ñu paree nag dañuy sélectionné ñi nga xam ne am nañ seen salaire yu toll fii ñi seen salaire toll fii ñi nga xam ne ay ci informel lañ nekk loolu yëpp incha allah demande bi danañ ko loolu ñu naan ci tubaab échantillonnage nga xam ne kenn ku ne danañ xam fi nga nekk ak laka nga man su ko defee am nañ fiche yoo xam ne dañ ko séddale woon ci région yi tamit nit ñi inscrire parce ñëpp nekkuñ ci internet hmm. jël ay fiche bindu buñ balee ñu ngi dajale loolu yëpp suñu service technique yi ñu ngi ci liggéey et que bu jotee incha ko sélectionné danañ fexe ba sénégalais bu nekk newuma ñëpp danañu am kër waaye en tout cas ñii góorgóorlu ba ne bindu nañu egg wane nañ un minimum de garantie gouvernement bi dana leen jàppale ak ministère bi ba ñu ba kër dëkkuwaay parce que dëkkuwaay ñëpp moom la ñuy moom la ñuy wut. Mhm. ñu ñëw ci actualité màggal Touba yi euh, finalement danañu ko amal ñu ni euh, ci kaw euh, sàmmoonte ak geste barrière yi bu ñu xoolee fi mbas mi toll yow doomu Mbàkke nga ndax sa xel dal na ci amal xew-xew bu ni mel. waaw xam nga màggal gi moom comme gàmmo yi ak yooyu yëpp ay événement yu am solo la ci dundu ñi nekk ci l'islam rawatina ñun ñi nga xam ne ay murid lay effectivement comme noonu nga ko waxee préfet bu Mbacké bërki démb demoon na defoon na CDD réunion bu mag boobu muy def pour préparer màggal gi moom le comité d'organisation bi nga xam ne moom la sëñ bi teg ah loolu nag li nga xam ne mooy ñun ci suñu cër mooy ñu jàpp ne yi bu ñu góorgóorloo yàlla dimbali ñu fi màgal gi war na des ñaari weer yu teg ay fan balaa booba yàlla dimbali ñu ba situation bi gën a amélioré wu waaye bu dul loolu tamit kenn ku ci nekk nga loolu ba nga xam ne condition yi nga xam ne moom la ñuy teg gouvernement bi ak comité d'organisation bi juboo ci ak kenn ku ne sarto ak loolu ñu ñaan yàlla may ñu ñu mën a def màggal gi mën a def gàmmu yi ba génn ci ak jàmm incha allah lu aju ci wàllu élection locale yi naam jàppaguñu euh, kañ la ñu koy def waaye ñu bari tàmbali na ñoo wane seen bopp ndax bokk nga ci ñi nga xam ne euh, bëgg nga justement samp sa ndënd ci yooyu wote waaw xam nga man nag euh, foofu damay sol sama maxana politique Touba Mbacke la dëkk rawatina nag Mbacke fa laa yëngu ci politique e yàlla dogal na tamit depuis mille neuf cent quatre-vingt-seize conseil municipal la ca commune Mbacke et que li ñuy bëgg également ci parti politique nag laa bokk ak ci coalition bu ñu yàlla dimbalee ba ñu egg ci élection yi jàpp naa ne kenn ku ci ne dina dégg ambition Bara parce que wax ci sa bokk yombul waaye waa Mbacké xam nañ ne samay xëy ak sumay gont yëpp mooy que ñun lu ñu xëcc yóbbu ko Mbacké bu ñu sañoon tey Mbacké am hôpital bu mag ku ñu sañoon mbedd yi nekk Mbacké ñu gën koo defar bu baax naam gouvernement baa ngi def waaye des na lu bëri ñu sañoon tey Mbacké am ñaar ba ñetti bu ñu sañoon tey marché Mbàkke am na lu ñu commencé defar déjà waaye ñu gën ko yeesal gën ko yokk euh, loolu mooy suñu ambition et que bu ñu sañoo tamit doomi Mbàkke yi nekk ci nga xam ne mooy position politique yu mag yi bokk ci gouvernement bi bokk ci am ay direction générale ba nga xam ne ëllëg danañ mën a fekkee fa ñuy décider pour que ëllëg si biir tamit arbitrage yooyu ñu indi yi Mbàkke parce que Mbàkke département Mbàkke tamit ñun yàlla daf ñu dimbale dañu critères yu bëri yoo xam ne yu tax ñun ñu war ñu jox ay cër parce que ñu ñoo yore ñu ñoo yore ci suñu département Touba te Touba ñëpp xam nañ ne ville symbole la mais ville religieuse la également day indi tourisme mais ville économique la tamit parce que màggalu Touba ak yeneen màggal yi am Touba day permettre day gouvernement bi li mu am ay taxes yu bëri da koy dugal loolu tamit en retour macha allah président Macky Sall def na ci lu am solo parce que tali yi nekk biir Touba yëpp gis nañ ko gis nga effort yi ñu def tey ci assainissement bi waaye am na un élan solitaire gis nga tey Touba ca kanam li ñuy liggéey ak yeneen ak yeneen mais teewul quand même tamit des na ba léegi yoo xam ne ay doléances yoo xam ne département bi da ko soxla te doléances yooyu nag ay personnel politique ñoo ko war a porter te ñun jàpp nañ ne ci boobu la ñu bokk pour porter les doléances du département de Mbacké pour bi gën a bàyyi le département de Mbacké ak Mbacké commune waaye commune yi àll bi tamit parce que tey ay tali yoo xam ne yu mel ni tali bi jógee Taïf jaar Sadio ah, jaa jàll ba Gerle dañ ko war a defar Touba Touba Fall tali boobu tamit dañ ko soxla tay ba cekkeen njumaan ba dem Gossas tali la ay tali yoo xam ne dañ ko soxla donc doléance la yoo xam ne yëpp ñun bind nañ ko e que moom la ñuy défendre parce que gouvernement bi dañ ci bàyyi xel. Hmm. est-ce bi nar tatar euh, ci Mbacké ak ci APR xëy na ba nar indi ay jafe-jafe. ah des xëccoo bi moom soxna si bu ñu àggee élection locale moom xëccoo bi fépp lay doon du doon Mbàkke doon Dakar gii day texoo Kaolack Thiès partout Mbàkke tamit boobaa ñu dégg waaye nag ci parti lañ bokk bokk ci coalition hmm. boobaa jàpp naa ne parti bi dana teg ay mécanismes yoo xam ne danañ mën a def ay arbitrage pour def ay choix pour def ab équipe municipale boo xam ne dana mën a yor Mbàkke ak fal ab bu boobaa nag jàpp naa ne ndënd yi samp moom sama ndënd mënu ñàkk a leer na jërëjëf Lamine Bara Gaye ñu ngi lay gërëm euh, fàttali yow euh, yaay euh, porte-parole au ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique nekk fa itam conseiller technique bokk ci cadre APR yi nekk responsable politique ca Mbacké amoon nañu mbégte mu rëy dalal la ci matinalu tey bi merci beaucoup soxna si sant di la gërëm di sant auditeur ak auditrice yi eh, Rewmi FM yëpp di la jot li encore ministère urbanisme merci beaucoup